ahbabtu rabbal aalamiin ma'al amiin wal amiin وانخاد ذكر الأمين لكلكلي وجسدي salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñoo ngi nuyu ñëpp di jaajëfal ñëpp di jaajëfal képp koo xamante ni yaa ngi ñuy bàyyi xel comme niñ koy waxee moo xam ci réew mi la ak ci bitim réew ñoo ngi leen di jaajafal bu baax a baax a baax ci topp nga xamante ni yéen a ngi koy topp Touba Vision saa su nekk waaye mbokk yi ku gis jataay bu sell bi nga xamante ni ci lañ toog ngir waajal bis bi nga xamante ni moo ngi ñëw bisub Serigne Abdoul Ahad Mbacké nga xamante ni bisub julit yépp la bis la boo xamante ni mën nañ ne jullit yépp fépp fu uh, Sénégalais nekk rek fii ci réew mi war nga màggal bis bi nga xamante ni ñi ngi koy waajal muy màggalu Serigne Abdoul Ahad Mbacke ñu toog ci pàkk bu sell toog ci kippaaru kenn ci njabootuk sëriñ Abdoul Ahad Mbacke muy sëriñ Modou Mamour Mbacke mu doon jàmbaar ñu xam ko loolu mu dëkkee fii ci Madiyana gis ngeen màggal yi taxawaay bu am solo gi nga xamante ne moom la koy faral di amal saa su nekk ci màggaluk sëriñ Abdoul Ahad mbokk yi du ñu guddal dañuy jox sëriñ Abdoul Ahad xule rek mu ñëw uh, wax ci ñoom ni waajal li nga xamante ni moom mooy màggal gi ndax day mel ni uh, saa su nekk am na ay liggéey yu am solo yoo xamante nit ñi ràññee nañ leen ci lool ñu doon ay jàmbaar war lool amaana di ko amal li nga xamante ni ci bisu màggal gi kon sëriñ Abdou Lahad xam naa da ngay ñëw rek incha allahu rabbi wax li nga xamante ni moom mooy programme organisation buñ ci jógee comme niñ leen ko waxee rek sëriñ euh, Jëmb Ngom dina ñëw sëriñ Gana Messere moom doon na koo xamante ni mbokk yi ko xamee xam naa suñu nee sëriñ Gana Messere rek doonul koo xamante dañ koy présenté ti kenn rawatina mbokk yi nga xamante euh, yaa ngi bàyyi xel Touba Vision ab fépp fu ab télé nekk seqal yëpp muy Madiyaana Daaru Xuddoos Xayra ak ñëpp di leen woo ci bis bu màgg bi nga xamante ni ñu amuñu lu dul bisub Sëñ Abdou mooy sunu lépp mooy sunu lépp tey ak ëllëg ñoo ngi woo ñëpp di ko wax doomu aadama yi maam ni nga xamante ni noonu lañ daan taxawoo ci bis bi ñu gën a yokk seen pas-pas gën a yokk seen yéene te xam ni maanaam ki ñuy liggéeyal ku jara liggéeyal la te ku am pay la loo ko liggéeyal mu fay la lu ko ñoo ngi ciy woo ñëpp di ci woo si bëgg ñu seen i taxawaay ñu gën koo rafetal gën koo jekkal gën koo dooleel maanaam ñi nga xamante ni nag ñoo yore wàllu waañ wi mooy njëmba ak ñi nga xamante ni moom ñoo aju ci moom bu soobee yàlla ñu moom dana leen lim waaye ñun daal li ñuy wax mooy ñu ngi woo ñëpp bàyyiwuñu kenn góor jigéen mag ak ndaw. di leen yëgal bis bi nga xamante ni moom lañu jublu mu di bisu Serigne Abdoul Ahad di ci woo. mbooleem bokki jullit yëpp ak bokki taalibe yi képp koo xamante ni soppe nga wala nga dib xarit wala nga bokk ci kër sëriñ bi wala nga safoo sëriñ bi ñoo ngi leen ci woo rawatina wa Daaru Xudoos waa Miftaahul Xuyóori ak lu aju ci ñoom ak mboolem li wër saam te nga xamante ni sëriñ Aliou Thiam moo leen jiite ak mboolem li ci xayra li Abdoulaat Xule jiite ñoo ngi leen ci woo ñu xam nañu daan defee bis bi te xam ni bis bi yokku na kon nañ fa yéene yokku mbooleem kuy ñëw ku ne na nga fas yéene raxas sab xol raxas sa yéene fës yéene jëmmal bis bi te xam ni dangay fay si bor nanu ci góor góorlu fas yéene ko rafet fas yéene koo taaral kenn ku ci nekk tam nga bañ a jàpp ni féete ca waañoo rek mooy liggéey bi ndax liggéey bi kat yaatu na ku ci munta féete ca waañoo itam duggal ci baas bi nga fas yéene ni ko Abdou Ahad waxee alxuraan xasaayit ak al salaatu ala nabi loolee luy jëmmal bisil ba la kon ñi ngi ci woo ñëpp leen fas yéene jëf fas yéene li nga xamante ni mooy doxal yoonu sëriñ bi muy ñaq ñukk ak ñuqi ñu fas yéene def ci lu ñu am ba mu jeex tàkk kon woo naa képp koo xamante ni soppe nga wala nga di xarit wala nga bëgg lu baax ñoo ngi lay woo suñu bis bi. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. bokki julli di bokki taalibe yi ñoo ngi leen di nuyu fii ci kër sëñ Modou Mamoune Mbacke ibnu Cheikh Abdoul Ahad ngir di waajal bis bi nga xam ne daf koy defal sëriñam way juróom Cheikh Abdoul Ahad Mbacke mi nga xam ne dundam gépp daf koo jeexal ci liggéey Serigne Touba ak taxawu Serigne Touba doyoon na ca baatam yooyee mu waxoon ne gëm ak wóolu ak yaakaar ak ragal Serigne Touba la ñu koy def loolu mooy li xew ci àdduna bi yëpp di wone rek Serigne Touba amul morom Cheikh Abdou Lahad ba mu koy wax yàggoon na lool Cheikh moom mi nga xam ne eh, Cheikh Abdou Aziz waxoon na ko ne ko abu xayta baadaka maddaxan aylamal ulama yaa ajwada naasi turan mufradal alami sayatumu kullama xat kaana ya chiami kooke la di ko woote mu Cheikh Abdou Lahad Mbacke waaye ci ndigalu Cheikh Sidi na mi ngi koy yëgal sëriñ Makhtar Mbacke mu Cheikh Abdoulahi borom ko yëgal nag njabootu sëñ Modou Xëri Mbacke sëñ Ahmadou Mbacke nekk ca bopp ba mbooleem sët yi mboolem lu bokk ci sëñ Modou Khary sëriñ bi nee na mi ngi la ko yëgal bàyyiwul kenn te xam ne ñoom ñooy borom bis bi ñooy borom màggal gi ndax kenn ku ne xam na ab cëram ak waay bi mu am ci njabootu sëñ Modou Khary ngir way juróom wu selloo soxna Tahira ak mboolem njabootu sëñ Modou Ajara Mbacké sëñ bi nee na mi ngi leen koy yëgal kenn ku ci nekk mi ngi koy tàmbalee ca bopp ba ba ko ginnaaw ca kër ga yëpp ak waa Touba sëñ bi nee na mi ngi leen ko yëgal waaye fàttewul lépp rek njaboot gi ci njabootu ci maam Maharam Mbacké nee na mi ngi koy yëgal ñëpp kenn ku ci nekk kàddu yi ngay dégg mooy ndaw li mu yónni ci yow mooy teewaayu boppam ci jëmmam waaye bis bi it mu wax ne bokk yi mu ko ba baaxoo àndal yëpp rawatina daaira yi nga xam ne ñoo ànd ak moom liggéey bi daaira Daarul Xuduus seen jëmmangom mi nga xam ne dégg ngeen kàddoom léegi sëriñ bi di ko soññiwaat di soññiwaat njaboot gi yëpp waaye xaqul yaqin sëñ Bekkaay Seen nekk ca dakaar kenn ku ne xam seen passif ak seen pas-pas ci taxawu sëriñ bi ak jàppale ko ci mépp mbir mu nekk ak mbooleem daaira soppee sëñ Moodu Maamun yi nekk Touba Sam yëpp tàmbalee ko ci daaira tasawudu sixaar euh, nga xam ne soxna Fatim Silla moo ko jiite moom it nekk fii ci Touba Sam ak daaira soxna Astagay moom it di soppee sëñ Moodu Maamun Masalikul Jinaan ak daaira soxna Joor Jaw Mafatihul Jinaan ñoo ñëpp di soppee sëñ Moodu Maamun yi nga xam ne dañoo gàñaay ànd ak ñoom bis bi sëñ bi nee na amul lenn luñ ci yeesalaat lu mooy di leen sant ca la weesu di leen soññiwaat ci li nekk suñ kanam di ñaan yàlla la weesu lu ci seenam kay lépp suñ borom nangu ko nee na bis baa ngi noonu lépp a ngi seen loxo képp koo xam ne dégg na kàddu gi wala nga gis jëmmam rek yëgal ne mooy sa boote mooy ndaw li nga xam ne ñëw na ci yow kon Serigne Badiane la ñuy jox kàddu Serigne bajaan Badiane mu wax ci kàddu Serigne bi ñu door a ñaan bismillah képp koo xam si ñëw nga ci kër gi tam nga ni fi di yar taalibe ak loo si moom lañ ko mën a rafetale bis bi ndax kii ñu koy defal kat ëpp na bis bi Serigne Abdoulaye jëmm la woon joo xam ne képp koo xam ne yaa ngi dund ci ci sa dund tase woon ak moom ah wala nga dégg ko wala sa sa kenn fekk ko war nga ko bu ñu bu ñu dee taxawal bi sam war nga ko delloo njukkal loo xam si maanaam kenn ku la gis ko ne xam li bis yi yow chance nga chance moom boo xam ne bis bi doog bis bi rek moo tax kon loolu sëñ blaat matte na ko jëmm ji nga xam si moom lañu àndal mu koy def itam parce que boobu bu ñu bu dikkee rek nu dootuñu xam mooy sëñ bi mooy kan ndax dañ koy daal di gis melo woo xam si loolu day mel ni koo xam ne daal jëm jëm yoroon da koo toxal ndax fonk bis bi ak fonk ka nga xam ne moom la koy defal kon wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ñoo ngi leen di sant di leen gërëm ñu leen fi teew ñëpp ci kàddu sëñ bi jërë ngeen jëf mbokk yi dégg ngeen woote bi woote baa ngeen noonu kon di leen jox incha allahu rabbi dig daje màggalug Serigne Abdoul Ahad Mbacké waaye ba tey euh, di euh, fàttali mbokk yi ndax euh, ku ne màggal gis ngeen soxna yi taxawaay bu am solo bi nga xamante ni ñu ngi ko fi amal rawatina soxna yi nga xamante ni dañoo nekk fii ci daara ji muy soxna maam Dieng ñoom it maam macha allahu rabbi ñoom taxawaay bu solo boo xamante ni ñu ngi koy am ci màggal gi nga xamante ni saa su nekk bu egsee rek dañuy gis seen taxawaay bu am solo boo xamante ni dañ ko fi amal ak soxna Moumi Fall waaye ba tey it ñi ngi woo daayira yële nga xamante ni ñoom ñoo féete fële ca diwaanu Ndakaaru daanaka buñ ci tuddee Serigne Aline Sow daanaka ak soxna Nabou Diop day mel ni matal nañ bépp taalibe boo xamante ni yaa ngi fële ca diwaanu Dakar day mel ni mënuñoo lim ñëpp waaye day mel ni bu sëñ bi toogee rek kenn kuñ ci bu kuñ ci tudd rek day mel ni tuddaale nañ ñëpp kon xam naa incha allahu rabbi di leen jox dig daje incha allahu rabbi ba màggalug Serigne Abdoul Ahad Mbacke fii ci Touba Madiana fii ci diwaanu Mbaar yi الله رب العالمين صلى على الهادي الأمين في الملأ المكملين عن روحنا وجسدي